tey moom équipe bi la di Real Madrid subti den kaani ci entraînement bi saf na sàpp ak xorom open de presse mosu leen koo gis ci football Sénégal tey gone yi gundaandaat nañ fële ca suufu hôtel Radisson gundaandaat boo xam ne nag cuqur mbuuj na mooy jeexal xibaar yi ñu ziyaar leen bu baax a baax bégge leen catalan yi nga xam ni samay gars yi leen dañoo ragal ab sedd ñoom it tey ji dafa xëy sedd waaye maa ngi leen ciy ziyaar bu baax a baax di leen ci ndokkeel tey ñu takk jabar nag merengue yi nga xam ne nag ay marié leen di ay champion jàmbaari fàkk tëdd yi xëy nañ joxe dépense ba xëy teel catalan yi dara warul leen ma sàkku ci yéen ngeen abonné yow mi ko def ba pare cant ak ngërëm ñenn yow mi ko defagul maa ngi lay ñaan nga def ko aimé suñu vidéo dañuy kaf ak diree ak yéen ndax loole mooy senegal tàggute gi nag maa ngi ko commencé tey ci Lucas Vazquez ak kile nga xam ni moo nekk euh, Senior Vinicius nga gis ko tey nag daanaka dafa feggoog ñetti doomu ndeyam wala ñaar kenn ke moom moom ñoo bokk dëkk di Vinicius Senior keneen ki nag moo toog démb stade ba Santiago Bernabéu Carvajal nag mu déggoo ak équipe bi nga xam ne daanaka mooy Real Madrid Carvajal a ngoog ci côté Modric ci beneen côté fële ca càmmoñ ga tey ci entraînement bi sumbuxlu bi neex na la jaar na yoon tey merengue yi dañoo xëy euh, noppalu nag ginnaaw victoire bi ñu am te waroon a coppatim noppalu entraîneur bi di Carlo Ancelotti rek doomam lanka ndaaree la wax amul nopp la tey xëy dem liggéey rek moo tax ba ne yi ña nga ca liggéey ba fële ca Valdebebas euh, ci waa mini ci bu tooy danañ ci dikk waaye nag ñett ñi ngeen gis leen tey daanaka ci forme leen ne ndax foo tourné ci photo yi nga xam ni am nañ ko ak euh, gone ya nga xam ni ñoo nekk fële euh, ca Real Madrid TV ñooy filmer affaire yi di ko photo bu ko defee ñun nag ñu ci mën di jot Toni Kroos ak Modou Lô ñaari màgget yi di wane exemple ci football international di wane exemple euh, football mondial Arda Güler moom it mi ngi noonee ngeen gis ko daanaka moom it xàddiwul benn yoon di gën a wane cofeel ak affection bi nga xam ne am na ko ci équipe bii di Real Madrid tey xaar bi sam ñu nit ñuy xaar tey jii euh, kii la di euh, Carlo Ancelotti defaat beneen appel ci moom maanaam man koo woo boole ko ci équipe bi ndax moom pare na 100 pour cent te it ji xaar premier ballon yàgg na bari na lool ndax gone gën góor góorgóorlu rek ni ma ko waxoon teg tànkam euh, fi mu war a teg tànkam Real Madrid du équipe boo xam ne da fay nekk di yàkkamti mën ngaa ñëw ndànk-ndànk rek bu yàggee bu soobee yàlla da nga mën a bokk ci équipe bi normal kii di ki nga xam ni moo nekk international français bi. moo it ci image boobu jàll ngeen gis ko léegi mu nekk euh, ki la nga xam ni mooy Edouard Kabadinga nga xam ne gars yi soxla nañ ko lool ndax moom moomee ay dëppam ak kii du për ni gardien nag euh, ba tey gis ngeen ko jàpp yi mi ngi leer lépp a ngi tolloo fële ca Madrid yéen ñi ni door def nag ci information yi ñu ngi sàkku ba tey ngeen def seen amabna yow mi ko def ba pare ma gërëm la euh, sant la bu baax a baax ànd bi am na solo open de presse bi gën a doon def ci suufu noppalukaay bi nga xam ne moo nekk fële ca jam ñaajo di Radisson foofee tamit noppalukaay bi Koulibaly moo ko jiite woon ak kii gaayam ñoom ñëpp nag daanaka taxaw nan kii di parti ci milieu terrain bi gars yi ko doon introsé bari nañ jëm ci gone RTS yeeg gone fédération yi ñoom ñëpp ànd na noog moom bu ko defee moom it wax dëgg yàlla ñun ndékki ba suur nag ndékki loo xam ni café ak meew bu fàtt taraj la laal tuuti ay pooji ginaar doxantu nag ci ñax ma ak baas bu ndaw bi nga xam ni gaa ñi defal nañ leen ko moom mbégte la àndal nag ci Sénégal ak doon sénégalais ak ambiance ak li nga xam ni Sénégal jox na ko ko bari na lool ndax xam naa ni humour ak kaf ak ree gi ñuy génne ah, di ko teg ci taabal di loolee daanaka ba muy ne France amu ko woon ndax mbégte la àndal ak culture Sénégal moom mii nga xam ne mooy Abdou Lahad Diallo Edouard Mendy Edouard Mendy ngeen gis ko noonu di fàttali ni euh, loolee di entraînement bi tey dana am en